bi ñu nekk opposition ci la nga ma gën a xamu ci ci lañ soog a xamante sax peut ba nga mën a wax engagement mais boobu damay fàttali ni que secrétaire nationale chargé des jeunes APR laa woon ku wax ay jeunes ci parti xam ni que ñoom ñooy jiitu ci xeex bi. bi ma duggee ci gouvernement bi tamit ministère de la jeunesse lañ ma joxoon ministre de la jeunesse. moom mooy barrière bi ngay njëkk a jot balaa ngay egg ci premier ministre sax bay egg ci président de la république ma jàpp ni que boo ci nekkee am na taxawaay boo war a def waroo cee xool nan nga mel sa photo ndax rafet naa wala rafetul xeex bi maanaam yaa koy yanu boobu mooy bi ci topp beneen bi ci topp membre gouvernement dafa am taxawaay bu mu war a am tamit parce que ñooñu le président tànn jox leen ay ay kuréel ni leen sama yéene ci réew mi lii la nii laa bëgg ngeen doxale ñooñu ñoo am responsabilité jiite xeex bi parce que xeex la explication la wax weddi tuuma firnde noonu lay fi tëdde ok tey jii nii nag <laughs> xëy na fi ma nekk. foofu wax ju bari waruma. d'accord parce que euh, Mambay loolu li nga wax ni mhm. dafa am fu ñu ko bind est-ce que dafa am ci ci ci intérieur bu ñu bind ci gouvernement que ah. chef de cabinet wax ju bari waru ko est-ce que dafa am fu ñu ko fu ñu ko dafa am dafa am lu ko lu ko légiféré mais bien sûr waaw doo xam fan lañ ko légiféré mais dañ ni que c'est le gouvernement qui met en œuvre la politique du président de la république waaw amul benn pàcc booy jël ci ñi ñu dunde ci amul jëwriñ buñ ko dénk ci gouvernement bi euh, tey jii non non non cest li ma la laaj ak li ngay wax bokkul la laaj parce que dama la laaj làmb presque joué nga fi football. mais man waxuma loolu. Hmm. li ma wax mooy hmm. euh, dama bëgg a xam. Hmm. bu ndax dafa laale ak génne bu ñu la génne ci gouvernement bi. nekkatuloo ministre. nga am ci lu la naxari nga rangé wu nga ni kat man li ma doon rey sama bopp jaru ko. parce que itam toujours yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi rey sa bopp nga ñu gis nga gis ni am na ñeneen ñoo xam ni jox nañ leen portefeuille. yow paritu. est-ce que laalewul dara ak euh, loo xam ni lu sa sa lu personnel la. non non xam nga bu fekkee ci wàllu joxe cër la. Mhm. wax dëgg yàlla li ñu ma jox ak fi ñu ma féetale moo ëpp prestige moo ëpp jàmm moo ëpp nooflaay ca ci ngay gën a mën a sax doxal sa xalaat parce que bu ñu nëbbantewul régime présidentiel lañ nekk. régime présidentiel ki nekk ak président wax dëgg yàlla moo téye nguur bu fekkee nekk ci xalaatu nit ñi ni ñuy téye nguur la fi ma nekk moo gën fuuf nekk membre gouvernement parce que doo xëy ca gisoog président doo xëy ca waxoog président et dina am yenn yoo xam ne yaa koy def mais dafa di munoo nekk ci ginnaaw kilifa mu nome la ministre chef de cabinet même en terme de confiance bu fekkee ci kóolute lañ ko teg poste boobu mu ëpp kóolute sax. nekk ci gouver ci biir gouvernement. dafa di. ok euh, xëy na nit ñi ñoo tàmm di ma gis ci loolu dama jàpp ni que sama role laa doon joué moo tax ma wax la ci misaal ni la. bu ñu dugalee attaquant attaquant li ñuy xaar ci moom du mu défendre. d'accord mu dugal but la. ok bu ñu dugalee défenseur défenseur li ñuy xaar ci moom du mu dugal but bu dugalee ñu jël de waaye wax dëgg yàlla mooy. défendre ok d'accord mm-hmm. laalewul dara ak li ñu la mm-hmm. li ñu la daxee ci gouvernement bi mën nañu jàpp loolu. Uh-huh. ndax itam laalewul dara ak coow Prodac. non nga xam ni peut-être nga retiré wu dina am lu mu ci indi ci ci stratégie boo xam ni peut-être dina mën a. no euh, dina ko mën a fay. xam nga nëppal ko coow Prodac. yàlla def na ni que coowul Prodac bi ma ciy njëkk a wax ci sa émission laa ci waxe mhm. yàlla def na ni que tamit bi muy njëkk a commencé leer ci sa émission la leere mhm. parce que euh, xëy na man jo salatul sax ma ciy wax atum lëmm jël nañ ko diir atum lëmm. kenn ñemewul wax nag moom moo jël parce que ku wax ni moom moo jël ñu dem tribunal juróomi journal ñi ngi maanaam ñoom ñi ngi tribunal fi njëkk ko commencé mooy euh, marché bi ñu signé DCMP si ñëw ko. ñu génn ni DCMP signé na ko. ñu teg ci ni ARMP signé wu ko ñi xamul woon dañ xamuñu woon ni que ARMP signé wu ko li féete kaw ARMP moo ko signé. non laaj bi du nga indi leeral rek ndax laalewul rek laay wax loolu moom je pense que loo ci leeral leer na wax dëgg yàlla. waaw mënta mënta dama lay expliquer. ñu jóge ci loolu. ñu ni non 29 milliards yëpp la yóbbu fii la directeur Prodac ma koy ci honnêteté mm-hmm. Pape Malick Pape Malick. Mm-hmm. et la ko waxee. ni man moom sax ci politique déggoowuñu. kon noonu la ko waxee waaw mu ni la. ni ma ko foogee woon ak bi ma ñëwee xool ko wax dëgg yàlla du yàlla dafay mel ni yàlla ak yaali mm-hmm. mu ni vingt neuf milliards yi ñu doon wax man ci laay liggéey ba léegi donc ku ñuy jiiñ vingt neuf milliards nga nangu summi sa mm-hmm. veste nii man nangu naa ñu dem àtte ma ñu koy ruuma daat parce que kenn ñemewu ko ku ko wax ci kaw ñu dem tribunal ku c'est-à-dire ku jóg daat ni moo def lii ñu dem ñu toog ba tey alhamdulilah ñu ni vingt neuf milliards yi feeñ na ñu ngi ciy liggéey donc coow loolu mënta doon coow loo xam ni dafa lay affecté ci sa carrière dafa di li ma la wax. ba ñuy ah, commencé mais mais non non non Mambay. Mambay mun mhm. coow boobu munu la bañ a affecté ci sa carrière nag ay lay. non parce que fu ñu nee mbay ni Prodac. fu ñu nee mbay ni Prodac. waaw mais ñi ko doon wax tey. waaw non loolu loolu moom. waaw loolu mënu la bañ a aussi ci sa. <laughs> waaw fu ñu ni mbay ni Prodac. waaye fu ñu ni moo jëloon ni xaalis ba feeñ na xam nga xaalis buñ ni feeñ na ñaara mën a nekk nit ki da ko faa delloo si xaalis boo xam ni fañ ko tegoon yow sa signature jëlu ko fa yow dénkuñu la ko ñu mën a wax ni que yaa ko dem jël tey ñu mën a wax ni que noo feeñ na ba ñu ngi ciy liggéey ñi am xel mosoo dégg ku xam état ku xam audit ku xam nu finance di doxe taxaw ci wax amul donc loolu. Birahim Seck euh, avancé na ci ci livre bu leer boo xam ni wax na ci loo xam ni euh, dooma ni xamul état dooma ni xamul nu finance di doxee. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla danga bëgg rek ma wax la sama xalaat nit di ko naw yaakaar ni dafa xam mais li mu wax xamu ci dara. et firndeelante ni que li muy wax lépp li ci des ku yebbu bàyyi ci xel parce que li muy wax benn xamu ci dara ñaar bu xamoon du ko wax ñett bu amoon firnde génne ko. Mm-hmm. ñeent bu fekkoon li mu wax dëgg la kon nit du toog ci sa émission hmm. ni xaalis bi lii laa ciy def lii laa ciy def maa ngi inauguré d'accord d'accord beneen considération d'accord loolu bu ñu eggee mën nañ ko non non je pense que loolu moom c'est hmm. juste rek parce que bu ñu gisee Mame mbay Niang ñu hmm. xamoon ko vraiment ci ci ci défendre le gouvernement xamoon ko ci défendre le chef de l'État ñu toog gisatuñu ko mu coïncider ak coow Prodac bi bëggoon naa xam ak aussi nga génn ci gouvernement bi ndax ñaar yooyu benn moo tax nga dem beru toog jàpp sa njàmbur d'abord wax nga ma mm-hmm. wax nga ma aussi mm-hmm. que gouvernement dafa am ñoo xam ne ñoom la ñu fal ñoo war a dugal ñi war a dugal donc ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu dégg ñoom la war a gis su ma juumul mm-hmm. ñoo war a défendre aussi su ma juumul alors kon est-ce que loolu am am na est-ce que tey ci seen gouvernement ñi nga xam ne ñoom la ñu fal pour que ñu defendre le chef de l'État est-ce que ñooñu ñi ngi ñi ngi ci seen role xam nga parce que bu ñu demee ba yow nga ba yow nga a mën a génnaat wala keneen a a génnaat est-ce que ñoom ñi ngi ñi ngi jouer seen rôle. pour yow mooy li la wax gis nga xam nga nga nekkoon ci barab tey jii nii ngay ñu nommé la chef rédaction bi. Mhm. nga xëy ñu jëlee la ci rédaction bi xaw ma beneen poste ban moo fi am ñu yóbbu la fa. Mhm. boo continuer di def liggéeyu chef rédaction kañu fal dina ni kii amul xel ba mu fa nekkee dama kaw bàyyi mu liggéey. tey nekkatu fi man maa fi nekk mu bëgg continuer di ko def man du ma doxe noonu mënuma doxe noonu mais lépp lu ma fuñ ma teg. mais lan bëgg wax ministre de la jeunesse nga bëgg waxal. non mais du nekk mujj ma nekk ministre de la jeunesse. ministre du tourisme nga bëgg waxal. mujj nekk ministre de la ministre du tourisme c'est-à-dire membre gouvernement dafa am taxawaay mais munoo cee bokk naan du ma ci taq. wóorul nii fii fan la dugg. gérer sa sa personne gérer sa image bopp. dama jàpp ne que gérer sa image bopp. waaw xam nga bu ay loolu lañ fi gis nag. waaw bu fekkee loolu ay lañ fi gis. waaw bu loolu yoo xam ni seen image moo leen gën a intéressé que image yu président loolu ku ci nekk ci loolu. Mhm. nekkoo ci dëgg nekkoo ci ngor nekkoo ci jub. Mhm. nekkoo ci fay kóllëre parce que ñi ñu tànn. dàqu ñu ah, mais parfois nag aussi parfois aussi taq ci loo xam ne aussi doo ko mën défendre. parfois aussi maandu da koy gën. man défendre l'indéfendable aussi maandu da koy gën ay la yéwén waaw ku wax dëgg ca yàlla tax xam ni réew mi bi ko président jëlee ak léegi mm-hmm. defuñu fi amul amul defuñu fi lu tax ñuy nëbbatu wala ñuy daw lépp lu ñu fi def lépp lu fi président de la république def nit ku dal ku conscient ku engage war nga mën a toog expliquer amul dara luñ fi def coow yi nga fi dégg yépp comme coowal Prodac bi la et yëpp yëpp yëpp coow boo fi dégg commencé nay leer amul waaw jël na fii vingt neuf milliards waa non jël nañ fii pétrole lépp ay leer parce que ay sos yàlla suñu borom moo def ni que mën nañ ko dox nii de mu metti mu metti mais bu yàggee rek leer mm-hmm. Pape Malick Ndour ñu bari dañ def ni man la remplacer man maa nekkoon Prodac. <laughs> moom kay remplacer wu leen. remplacer wu ma ka fa nekkoon.